modi di euh, tour si li nga ne si gox yu gëna a fasantiku ginnaaw benn daal di de procès si ginaaw ma ni kon boobu boobu ba Ousmane Sonko ñu ko doon denc li nga xamne ne modi bi kërëm nak alors nak dem bay neeku mu daal di li nga xamne modi libre donc euh, pour le moment euh, il est libre de tous ses mouvements waaye nañ daal di exactement par rapport ak walu wunu mel ak lan mo nekk si ginaaw ji fi parce que si c'est important daal di xam lan mo poussé li nga xamne modi Antoine Félix diom pour mu daal di lever bobu de nga xamne modi barricade alors euh, tout d'abord avant ñu gis ni euh, ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko mu wax euh, si Diallo, ko si ki nga xam nekk moo di Djibi Gueye que ni lu nu mel événement et que c'est un non événement exactement. ouais mais bien sûr man wax naa ko fii dëmb nee naa peut-être ministre bi lu ni que mm-hmm. Mm-hmm. euh, au moment opportun. nous mm-hmm. avons ñu ni que war nañu lever le blocus ñoom dinañ ko lever. peut-être dama ma ni le ministre a respecté ce qu'il avait dit sur conférence de presse boobu mais nee leen fii loolu du événement parce que man gisuma benn événement euh, Ousmane Sonko boo xamante ne aucun juge n'a notifié euh, euh, c'est-à-dire que blocus boobu ñu teg ko ci kawam wala ñu teg ko ci koñam benn juge mandargaw ko donc loolu mënuma ko jàppee ni que événement loolu du événement dama jàpp ni que peut-être benn jaay doole bañ ñu bu ñu jaayoon Ousmane Sonko doole ba ñu dem ba ñu constaté ni que ñoom wàcc nañu yoon hmm. xam nga nee naa il n'est jamais trop tard pour bien faire il n'est jamais trop tard pour bien faire. Eux, c'est ce qu'ils ont compris. Bon, yon, ba dem ba xamni man li kat man nekuma ci euh, dafa jaadu nga ressaisir man dama japp ni la comment dirais euh, le ministre de l'intérieur s'est ressaisi euh, mu xamni ni peut-être dafa jaay doole ben citoyen sénégalais. Mm. donc il fallait rectifier il fallait comment adresse je lever blocus euh, pour que Ousmane Sonko mu meuna am liberté comme tous les sénégalais parce que c'est un sénégalais Ousmane Sonko jugé nga ko taxaw nga ci sénégalais yi euh, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Mm. maintenant qu'est-ce que tu attends. Mm. si il n'y a pas comment dire euh, euh, euh, comment dirais si il n'y a pas. décision décision boo xamante ne yow nga ko soit dans quoi koy tëj wala da nga koy mais lever la boule, blocus bi. Mm. il faut lever le blocus heureusement ils ont levé le blocus. Moi, ce n'est pas une information, encore une fois. Lever blocus, c'est Ousmane Sonko, ce n'est pas une information. en défaut bouillage. te du lim coûter dara c'est pas une information encore je regrette alors euh, ma ni euh, ki nga xam ne que moo di euh, Djibi Gueye Ndiaye mu daa nekk li nga xam ne que chef protocole bu Ousmane Sonko cardio le la si daal di yékki mu daal di japp ni itam le fait que ndal di lever li nga xam ne que moo di boobu di du itam information te itam nañ def le tout euh neex ñu daal di wëru mëna xam exactement lan moo sababoon lu ñu mel alors ñoom itam ndal di japp ni ñoom ñoo fa tegoon tay ñoo ko ñëw li nga xam ne que lever wat exactement alors cette déclaration ñu bëri doon xaar Ousmane Sonko pour mu genn peut-être peut-être euh, par rapport ak li nga xam cette décision bi nga xamni tam itam jël mais au contraire li wax li nga xamné que moo di ndaw ñi ak li nga xamné que moo di ses sympathisants mu ñu daal delluwaat si kër yi euh, dem focus si li nga xamné que moo d'autres priorités bokk na c'est la vente des bracelets électroniques euh, des bracelets autant que pour moi mm, waaye tam bokk na si nga xamné que moo installation des cellules de pastif étant d'autres yo xamni tam japp né ne ndaw ñi wala ñu focus fii ak 2024. non mais man jàpp ma ni Ousmane Sonko dina woté peut-être rassembler pour jubiler. Ousmane Sonko lan lay doy jubiler parce que avons lever barricade chez lui. non le man pour man man non Ousmane Sonko heureusement lui il a fait il a xamal na Djibi Guèye Ndiaye pour mu wako askan wi ni que mom soxlawul génie daw kërëm hmm. nañu euh, focus comme ci li nga ko ça c'est la grandeur de l'homme Ousmane Sonko l'a fait euh, bu nekkoon kenen ak kenen le xaar ci yow. Parce que lever Boulokis, ce n'est pas une fête nationale quand même. Voilà, ce n'est pas une fête d'un parti. Lolou lu ñu hmm. la la même manière dont ils ont fait pour nous barrière c'est la même manière dont ils ont fait pour euh, enlever cette barrière C'est la même manière c'est la même chose Lolo que euh, donc basé Hama fait qu'on décrit. voilà. Euh, euh, explication, non, non, non, non, non, non, non, attends. fait qu'on euh, mandarga l'anjot, voilà bataille ci juge bi, mm. pour nous barricader chez Ousmane Sonko. Mm. Juge bi, moy de encore bataxal pour nous ko Mais amul. ñom la même manière lu ñu defoon pour barricader chez Ousmane Sonko C'est de la même manière lañ def pour génnee que C'est à dire que toog ba heure bu la neex nga né sénégalais wala génn na barrière bi sans aucune notification. Est-ce que disney une déclaration au ministre de l'Intérieur Il en a tellement parlé dans des conférences de presse. Pourquoi il a mis la barrière, les barrières chez Ousmane Sonko Pourquoi Dis mm. a faut, dis me confiti à point de presse, de expliquer. Bay toy melni salle bi amul climatisation. Tay genn nañu barrière bi deful communication pour xamal ni Sénégalais yi lii moo ñu communication non mais bien sûr dans un pays organisé c'est ce qu'on ce qu'on fait mom togu ci conférence de presse expliquer Sénégalais pourquoi ils ont mis que comme à je barricadage bi chez Ousmane Sonko est-ce que mënul def communiquer euh, euh, communiquer du ministre de l'Intérieur pour xamal ni Sénégalais on a enlevé euh, les barrières c'est à la cité Keur c'est parce que ça et ça et ça hmm. mais bien sûr dans un pays organisé il faut communiquer avec askan Sénégal Quand on il ne communique pas avec la population sénégalaise il communique pas. mais pourtant ils non non non non il communique pas xam nga kan communiquer médecin après la mort bu ont ba ba ëpp communication alors que waruloon se da ngay jël des des devances par rapport aux événements da ngay communiquer bien avant mais ñoom leur communication il faut que affaire yi dem ba ba Euh, ba dégénérer euh, euh, communiquer alors que dans un pays organisé warlon demee voilà wala ñu dem ci médias étrangers yi waxu fa loo xamante ne sénégalais yëpp la concerner fii ñoom ñu dem ba tugal di ko fa lolu moy lolu bokk na ci ay ay fait yo xamanteni metti na day metti sénégalais trop boy communiquer ak sénégalais da ngay taxaw fi communiquer ak sénégalais wala il faut communiquer avec les sénégalais euh, bien avant les événements bon euh, sauf que ça c'est pas un événement le fait qu'on a euh, enlevé les barricades le barricadage chez Ousmane Sonko c'est pas un événement c'est des acquis yo xamanteni nit ñi yag nañ ko revendiquer ay mouvement yu bëri ay nit de bonne volonté nit ñi wax dëgg te yalla tax taxaw mus nañu taxaw fi di ŋàññi loolu di ne loolu taguñu ko fen taguñu loolu jaay doole la moo tax ma c'est pas un événement. Mm. lui ñëpp doon xaar donc mu ngi ni egsi na moo tax ma ne la euh, quoi qu'on dise aussi il faut euh, euh, rejoindre la la l'adage qu'il dit que il n'est jamais trop tard pour bien faire alors.